non loolu laa mais yaa ngi wax comme si Diomaye ak Sonko dañoo réeroo alors que ñoom ñaar ça va en fait maanaam li ngay wax ni ñoom bu ñu ko dégloo xëy na ay réer leen di def ay nit la yoo xam ne amuñu benn problème kii mooy kii kii mooy kële. Mamadou Awa li nga li ñuy wane ñoom ak man li ma gis du benn am naa capacité wu am naa responsabilité wu am naa ay droit mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il en chemin wala en perspective maanaam la moo la mën a jotloo ko ne ëllëg coow dina am seen diggante. waaw parce que xam nga pour moi pour man jëmmi Ousmane Sonko il est pour être président de la maanaam fauteuil bu ñu toog nii. absolument absolument non mais moom daaw soo xamee nit mën a lire morphologie u doomu aadama. Mhm. mën a lire sur le plan communicationnel gestuel wala oral ngay lire doomu aadama psychologiquement ci subconscience am nga xam ni le gars il n'y est pas nekkul. parce que li waroon a am amul loolu. Ah, il il il fait semblant de de de camoufler. de très généreux. oui da ngay nangu loolu. non je dis pas le contraire parce que parce que bañ ko bloqué. Mhm. loolu générosité la en fait donc mënu gëm ne il souffre de de cette situation générosité amu ci générosité mooy loo xam ne yaay tranché mais fii Sénégal dafa tolloon ci jamono yoo xam ne négociation amoon na. Mhm. président Macky Sall ak Ousmane Sonko Karim Wade waxtaan nañ ba jubo ba nara a dàq élection yi président Macky Sall tenté ko. c'est la justice sénégalaise qui s'est tenue qui se tient qui mu ne loolu du am. donc amul choix amul choix. parce que ce qu'on ce et moo tax nañ nañ continuer ak Diomaye mais laa li may wax mooy c'est c'est c'est le conseil dëgg la c'est le conseil qui a eu le dernier mot mais c'est juste parce que conseil def na déedéet après Sonko rangé wu ci loolu mais moom ce qu'il voulait c'était un report. non ça loolu baratinage la comme moom dafa jàpp ne day jàpp peuple bi di leen manipuler ñi seen xel amugul capacité wu décerner ay manipulation ñooy wax loolu mais ñun xam nañ ni ñoom àndoon nañu pour jéem a dàq élection yi pour moom mu bokk. et xam na ni su bokkul woon Diomaye Faye bokkut nguur gi da leen di romb lii am nag moo gën. parce que su nekkoon keneen a jël kër bi. Mhm. dinañ continuer di fen di dajale. duñu mas a xam ni ñoom ndekete mënuñu c'est ça la vérité. il fallait que ñu jox leen réew mi ba mu ba ñu xam ne affaire bi du ay wax. Mhm. waaw loolu daal laa gëm.